Paco il faut dire au Sénégalais que ni bi ñuy xamante tey nag occasion am na Paco bi ñuy xamante boobu underground la ñu nekk bi ñu defee Real One benn émission bu doon am. Euh, RFM RFM. nekkoon ci benn resto da doon déglu émission bi bi ñu paree émission automatiquement mu woo DJ bi nekko ko je veux parler avec ces gosses là. Mm-hmm. DJ bi paas ñu ko Paco ne sama rak. dama bëggoon ngeen jël taxi def arrivé paye ngeen fekk ma restaurant sangam ma ne ko yow la kan mu ne man la Paco Jackson Thiam ma paas ko caat mu wax ak caat caat ne ma kuy Paco Jackson Thiam ma ne ko en tout cas de toute façon musuma ko gis mais xam naa ni c'est un homme du du du bu nekk ci showbiz bi peut-être suñu affaire yi mu dégg yi ñu wax soit il va nous trouver un producteur ñun loolu laa yaakaaroon na ñu gaaw daw jël taxi ne wu am nañ producteur bi ñu yegsee toog ak pako ci resto bii mu commandeel ñu lim ñu commandeel yëpp ñun intéressé wu ñu ngi bëgg rek mu wax ñu. pako ne xam naa sama rek nag vous allez être déçus parce que bi ma leen woowee yaakaar ngeen ni producteur laa leen di doyee wala yóbbu leen spectacle mais doyewuma leen loolu sama rek je vous ai écouté dama leen di ñaan lillaahi wa suuli bu leen mës a changé lii ngeen nekk bu ngeen ko bàyyiwul. suba di ngeen bokk ci ñuy wàcce ak di fal président de la république ak di conscientiser la masse. Mm-hmm. Paco Jackson. Mm-hmm. ma ne waaye grand bi moo ma ne grand bi lii mënuñu ko woon wax ci téléphone bi <laughs> mais loolu mu ñu wax. Mm-hmm. tey jii nii bokk na wala mën naa. moo jur sax cinquante pour cent. li ñu indi fii ñu toll. mu yëkkati deux cent mille francs ci xaalisu boppam may ñu. Ah. ñuy xeex di xeex di xeex di xeex. nit ñi xam suñu relation suñu diggante ak Paco amul ku jaarul ci Paco ne ko waxal booy yi on est prêt à leur donner lépp lu ñu bëgg ci xaalis. dëgg la. il nous a toujours protéger et il nous a toujours conseillés parce que xam nañu donc nag keneen nag beneen grand bu alku bugg a wax <laughs> nu mu la neexee waxal. waaw man mais benn grand kese moo a bett. ci mhm. ñëpp non il faut que ma wax ko parce que grand boobu sama grand la. ma respecté ko mu nekk koo xamante ni on se fréquentait on discutait muy Thierno Alassane Sall il m'a vraiment su peut-être Massir Dadial bu waxee grawul parce que Massir Dadial c'est quelqu'un boo xamante ni xol bi dafa bon dafa ñuul yéenewul kenn jàmb yéenewul kenn dara <laughs> peut-être kooku moom grawul mooy li ma koy wax rek nee naa ko yow bu fekkonte ni am na tuuti influence wala sénégalais yi bëgg ko mooy raw rajo Mille Collines bu Rwanda kuy taalub dëkk la mais heureusement c'est quelqu'un boo xamante ni c'est l'homme le plus détesté du pays Massir Dadial Diagne donc voilà quoi anyway du ma tardé ci moom mais grand Thierno Alassane Sall vraiment son poste m'a parce que grand li nga wax ci man sérieusement au moment où on ñu doon toog man ak yow di waxtaan di sottante xalaat ngay rafetlu sama xalaat bon waroon nga ma ko wax face to face hmm. tu prenais du plaisir quand on discutait man ak yow waaye donc Mais... quand tu sors tu fais un poste pour pour def les grands c'est trop petit maintenant nag nangul naa sénégalais yi dama doon toog élection jot ma ne mais grand yi peuple bi lan moo tax sax duñ leen may ay 10 pour cent affaire yooyu jàppal bàyyi mm, mm, mais mm. ndekete sénégalais yi ñoo ma gën a xam nit ñi mm-hmm. si si sénégalais yi ndekete ñoo ma gën a xàmmee nit ak mbaam bu bañ liggéey <laughs> bon Griff. en tout cas on lay bàyyi ngeen naan sa ndox tuuti. <laughs> am nga xam nga li am solo rek. li am solo mooy. yow. Mhm. ah après ma jox la nga wax li am solo mooy yow. li waa ji wax yow ñaasu kanam nga. sëlëm sëlëm mënu ko dindi. c'est-à-dire dafa am loo def ci dëkk bi. nañ la ko nangul. fii nag ku nekk am nga jaar jaar. am nga ay tolof tolof dans ta vie xam nga mais sénégalais lu mu mu mënul accepter mooy moom lu mu amul keneen waru ko am. je résume parce que j'avais juste cette question là parce que je sais que moi j'entends souvent PCA PCA au, au fond de moi je ne sais vraiment pas exactement c'est quoi votre rôle en tant que PCA aujourd'hui si je vais juste me limiter ci li nga xamante ni loolu la texte yi wax. waaw. que ni damay présider. les conseils d'administration yi am quatre fois dans l'année. Mm-hmm. comme monitoring. monitoring je préside je donne la parole après je tranche. d'accord mais nag dafa am loo xamante ni je pense que ni sénégalais yi war nañ ko seetlu. Mhm. grand théâtre dafa nekkoon à l'oubliette. non c'était mort. Ça. je dis que la première réussite rek mooy le coup de pub le coup de com bi ñu nee def nañ kilifa PCA grand théâtre. Eh, c'est aussi première réussite bi rek mooy. c'est aussi un semaine bi yëpp on parle que de grand théâtre donc tabaarkalla macha allah alhamdulilah. démb dem naa defi visite de courtoisie yi avec mon DG. ak ak ña fa nekk ña ma jot a gis. ma gis un grand théâtre à terre. et j'ai dit carrément au DG que ni. on va pas faire. comme les Américains you and you, you, you ni comme les Français toi et moi wala les Africains man ak yow la wolof. Mhm. mais nous allons faire comme les Jamaïcains I je suis ton président tu es mon DG je suis ton DG tu es mon président nous allons former une personne pour relever le défi. c'est rien challenge moo tax sax ma aussi au Sénégalais je suis pas demandeur mais koo xamante ni nag dafa am cër ci man respecté ma depuis ñu xamante ba tey su gisee ni man wax naa ko mun a jàppale ci projet bii ñu naan te projet bi nag lépp la projet bi lépp la mu jàpp ni kilifa mii ma yàgg a toogal xam ban genre nit la xam ni c'est un entrepreneur ñoom ñuy wax yëpp di tëb di dal sur le décret bi ñuy génne dañ ne artiste entrepreneur artiste entrepreneur kilifa c'est un entrepreneur c'est quelqu'un c'est un homme de défi te ci kàttanu yàlla ak mbaaxam je donne rendez-vous aux Sénégalais euh, d'ici du yàgg dara de à l'heure du bilan donc incha allahu nous allons faire euh, ce grand théâtre un allah le plus grand théâtre au monde incha donc comme ni ko boromam Ablaye Wade bi nga xamante ni un homme de culture. xam ko teeye ko utal ko objectif ci kàttan yàlla ak mbaaxam Ablaye Wade dinañ la wan ni sa grand théâtre mu ngi soog a nekk ci loxo ñu ko xam. incha allah incha allah donc ça on va dire que c'est la réponse que vous avez de manière générale pour ceux qui disent que votre nomination c'est plutôt par rapport au fait que vous soyez copain <laughs> avec les gens de Pastef c'est ça. parce que parce que Paco que Jessica il faut. soyons honnêtes parce que les nominations peut-être di xelu sénégalais yi di njëkk a dem mooy salaire ba mu fay am. kilifa non du salaire ñu ci bari kilifa kilifa maye la. émission bi nag xanaa kilifa rek mooy wax. waa ayca mais leen ma ñun ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon fal bokk. wax dëgg yàlla ñu wax li tax nu fal. aywa maa ngi jéggalu. ah waay tam. yaa ah, waaw kilifa mënut a wax waaw introduire naa la kii nii noo xaar xaar. kilifa mënut a war a wax ñun. ñun ñii raak ci réew mi. bon ngoonee nga jéggal ñu nga baal ñu. Mm. ci parce que dañ doon may aussi kilifa mu exprimer wu. Mm-hmm. parce que y avait un moment solennel aussi bi muy mm-hmm. expliquer li ko dal yëpp. Mm-hmm. xam ak la méchanceté. de certains sénégalais comprendre foofu laa bëgg a waxee nag. waaw léegi nag dañ lay bàyyi yow nga nga riiti. naaw ba ma félicité euh, kilifa. ko féliciter. ak nit dof yàlla aussi nit dof aussi ñu ngi koy aussi. parce que c'est un c'est un combattant ñu nominé ñëpp du ñoom ñi kese. ñu jox ndomb tànk yëpp man maa ngi leen di félicité te di leen ñaanal yàlla yan bi suñu borom téyal leen ko. ba ñiy wax ëllëg ñu noppi. Mm-hmm. ñiy wax nag liggéeyalu leen leen ñoom pour ñu noppi. Mm-hmm. yéen da ngeen di liggéeyal pour askan bi. parce que yéen ba ngeen di euh, prôné. pasteefu booba pasteef ñëwagul. Mhm. yàgg na maa dégg Y'en mhm. ñuy xeex ci terrain bi. Mhm. kon yéen xale yéen leen yéen leen yéen yéen leen inspiré. sax ci jóg révolté wu ak bañ. loolu ku ko bëgg ak ku ko bañ may wax nag ci nomination yi ndax loolu moo ma itteel. ki ki ki jël bigam di di di di nominer par décret dafay def les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. ku mu nominé depuis ca ministre ya ba suñu jonni tey wax leen ma kenn koo xamante ne fañ ko teg mérito wu ko parmi les ministres ku ci nekk fañ la teg rek sa domaine la kon kooku seetul ku bokk ci parteem ak ku ci bokkul xam nga lu mu prôné du politicien encore une fois de plus li mu prôné mooy réew mi ni mu ko fekkee ba ko wax na ko léegi nësax gi mu nësax boîte bu ci nekk bu fa fukki nit waroon a nekk nga fekk fa fanweeri nit fu milliard nekk boo demee fekk fa ñaar dërëm boo laajee la ca des fu mu dugg kenn du la ko wan mi ngi ci seeni poste ñi mi ngi ci seeni compte kon je crois que ku mel noonu su jëlee réew mi di jël les hommes qu'il la place qu'il kooku ku ko remercier wul bu tegee nit kilifa ku ko fekk Grand Théâtre wala ku ko fa dégg doone lu tax xam nga lu doon bon ñoom ñi fi nekkoon li ñu doon def fekk koo xamante ne c'est un docteur ñu yóbbu ko def ko mu muy bay mu ne ca mbay ma loolu moo nasaxaloon réew mi parce que ñoom dañ doon seet clientèle politique kii nag politiqueul il veut relever le Sénégal encore une fois de plus rupture bi mu xeex ba ay bakkan dee ji beaucoup de morts. Hmm. loolu moo nekk ci conscience am. Hmm. Hmm. ba tax ku mu teg rek dafa am yaakaar ci yow pour liggéey waaye tegula pour politique kilifa ne dresse pas de monde kii botu mouvement. yorul ay nit bañ ko war koo teg pour mu politigal leen. déedéet. kon loolu war na leen a wan ne rupture bi ñu wootee ñoom ci rupture boobu la ñu nekk encore une fois de plus ñi nga fi cité nag dafa am ñoo xam ne c'est des aigris mm-hmm. en général yàlla moo mm-hmm. koy bind doomu aadama mm-hmm. ñuy ñaan yàlla mu bañ koo bindee kenn bindewu leen comme grand bi nga xam ne macha allah taaliba Serigne saaliw la xolam dafa set dafa làpp yéenewu lu dul nit lu baax am na koo xam ne tey dafa aigri lu baax lu mu yor sax da koy wadd ndaxte xolam la président Ousmane Sonko ku baaxul doo ko bëgg. Mm, mm, mm, ku baaxul je doo ko bëgg. je ku mu teg rek di nga ci ut loo ci wax parce que noonu démb. du bëgg du nangu tey. Mm-hmm. Ousmane ñi ko contrôle te ba muy xeex. Mm-hmm. ñoo ko contre ba tey nomination bu mu def ñu dugal ca seeni wax waaye du leen tee ñu dem. Mm-hmm. du tee ñu liggéey. parce que ñi mu teg ay liggéeykat lañu ay jàmbaar lañu. kenn déggu leen ci corruption kenn dégguleen ci càcc kenn déggu ci luubal alali réew mi kon ñooñu bu ñu leen tegee ci poste ñuy liggéey te ko mu teg cambar na la nag hmm. CV ngay yóbbu hmm. ba pare mu càmbar la biir ak bitti doog la fal moo tax ñu naan dafa yéex lu tax muy xaar ni xaar ne mais moom parteem sax da cee tegagul kenn kon kay kooku privilégié wul ay parti dafa privilégié réew mi la bëgg ñu avancé le plus vite possible kon kilifa euh, bàyyil ñuy wax ñu wax. ngeen liggéey seen liggéey ñun daal xam nañ ne ki ñu teg à la tête de sa pays l'équipe qui est en place bu jeune boo xamante ne ni boolewuñu dara ak politique. bañ nañ ko ba dañoo organiser wu doo dégg kenn ku wax lu dul dangay ngay jékki-jékki rek gis ñu teg ay action ah ñetti weer lañ fi def. ñeent grand action ñeent ñeent. ñeent ñu fay fi boru agriculteurs yi quatre ans mi fi ñoom ñu ñëw fay ko. ñu jëm ci licence de pêche yi pêcheurs yi di jooy fu ñu toll licence de pêche yi lijjanti nañ ko ba mu ne ko rek ña kocc jëmal ci njàngale mi étudiants yi de waxatuñu ndaxte seeni bourse ñu ngi leen koy fay jox nañ leen seeni avance macha allah te dinañ leen gën a defaral ba mu baax. non te léegi sax. nga jëm ci. dogguma la da ngay am sentiment de sécurité. sécurité. xam nga loolu c'est important ci doomu aadama nga nekk sa dëkk ba pare nga xam ne nit su la tooñee su la tooñee ku mën a doon ah, ku mën a doon ah, y a mille chances su ngeen demee su nekkul ci dëgg ñu kepp ko moom loolu la njëkk c'est important dañoo toog loolu yëpp ci bi la bokk loolu yëpp ci bilan bi la bokk ndax bi fi ancien régime nekkee koo wax mu ne justice bi tëddewul njaaxaanaay metti lool soo nee Ousmane Sonko dafa xees ñu ne jëli leen ko boo nee Ousmane Sonko ak a baax ci réew mi ñu li jëli leen ko soo génnee di manifester wala ngay wax sa benn baat ñu jàpp la dóor la ñii ñu di leen rey ñii ñu di leen bundu xataal. soo nee dafa ñaaw ñu ne kaay. boo nee dafa jox leen ko poste sàngam. mais yow mais yow mais yow mais yow balaa ngay continuer nii. Mhm. il faut nga wax ñu quand même aussi da nga toog fii en tant que présidente. réseau Riyal. xam nga. il mm. nga wax ñu quand même. aussi parce soo fi ñëwee nga toog fi après nga dem ni nañ ni mais yow sa gars yi waxu Ousmane Sonko rek lañ fi doon wax. comprendre nga te pourtant xamuñ ne Ousmane mooy xorom si nag loolu la yàlla dogal ku ma ci mere yaa <laughs> xam. léegi xam nga dama bëggoon xam sincèrement ah, hmm, yow sa réseau bi. Mm-hmm. Ah, lan nga ci jublu. parce que xam naa ni que yéen a sonn pour orphelin yi pour euh, kiiw jigéen ñi autonomisation pour jigéen ñi loolu yëpp mais yow gis nañ ni sax élection yi waroon nañ la nommer ministre de la femme parce que quand même seen réseau bi nga dana xam nga yow yaa ngi xeexal mooy sincèrement nag Pastef ay jàmbaar ngeen mais te li nga wax dëgg la mais yéen ñi nekk ci terrain bi di xeex yéen kenn nomewu leen yow oh, amoo poste voilà loolu moo la war a xamal ni. moom yow ma jël la 2STV bi moo gën a yomb. da bàyyi ba man ma accompagner projet bi parce que nag xeex ba gañ a neex na lool waaye li gën mooy góorgóorlu nag ba téye ko. ba am résultat. te loolu il leur faut. ay ay ñu leen accompagner. te loolu ñun ci la ñuy taxaw ci la ñuy nekk bu dee la cadre de Rial. c'est mhm. le réseau international des Amazones leaders. Mm-hmm. yoo xam ne nag euh, macha allah euh, ëpp nañu 6000 membres maintenant. aussi bari nañu dans l'étendue du territoire national et international. di œuvrer nag ci euh, di jàppale.